asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfati sëriñ Saliou Mbacke jaraw lekk Cheikh Béthio Thioune sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér sëriñ Saliou ndigal Thioune yàlla na ko yàlla may kattan may ko wér te bàyyi ko ci kanamu njaboot gi barkab sëriñ Saliou waaw man maay jëluñu Atra yor lu jëm ci wàllu boucherie bi muy wàllu nag yi tàmbalee ko ci njënd ma ak ci defar gi ak ci diggante di ko séddale di ko joxe loolu laa féete mooy sabab cër waa fi euh, ñu Euh, bu nu boole mboole seen daal xam naa ne romb nañ fan tollu woon daaw boo xoolee lii yow di nga nat sam xel lim la jox la moom la war a doon lay ñëwaat moo ko ëpp ndax ren danoo ren danoo indi méthode bu bees ren sëñ bi dane daa bëgg ñu indi camion yi fii ci pénc bi wàccee leen ko fi moom ngay seen teewul nag ndigal la nga xam ne moom la Cheikh Béthio daan jëfee daan dàq nag yi maanaam dañ koy def ni ko Cheikh Béthio daan defee waaye moom sëñ Sall ndigal li ci yokk ren mooy teg yenn yi mu teg ko ci camion dawal ba ci penc bi ñu wàccee ko ñëpp di ko seetaan loolu mooy mooy euh, li yees ren ci màggalu Sëriñ Tuubaa gi mu nekk nag wet goo xam ne ne bu ndee xool ci cant gi wet féetu ko ci kaw ndax sëñ Saali Mbàkke moo ne cant bernde bernde rendi nee mënoo sant bernde te rendi woo rendi rendi gi dafa mooy maanaam dafa mooy mooy datu cant gi waaw mën ngaa dem uti say ginaar yu nu suqi jënd sa dawal di sant boo ko defee it la ci suñu borom digee mën nga ko caa am waaye nag charte yi maanaam mooy rendi bernde te doo sëñ Saal nee na togg yu neex te sont nga di ko joxe te doo ci am xaaj ak seen loolu la sëñ Saal Mbàkke wax nee loolu mooy cant gi maanaam cant gi da ngay bernde da ngay rendi togg ko togg yu neex te sont nee na ba pare di ko joxe te doone kii njaago la kii pël la kii tukulóon la kii murit la kii tijaan la déedéet da koy joxe si xol bu sedd guy maam loolu mooy nation cant nga xam ne moom la su moom la sëñ Saliou Mbacke leer na cant ni am na yoo xamante ne dañ ko dàq indi waaye li sëñ bi waaw waaw ndax ren ren génnuñu. lépp fii lañ ko wutee sëñ Sall dana woon cheikh bi bu ma sañoon day li nga loolee ngay def fii ci Touba la nga cay la nga cay la cay la nga cay la nga cay def mu lu jëm ci mbaalu nag yi nga di ko wutee fii ci dëkk bi loolu nag cheikh bi daana ko def waaye li ci ëpp dañ daan génn waaye sëñ Sall ndigal bu ñu xoolee ñaari at yi dafa saxal ne baat boobu sëriñ Saaliw Mbàkke waxoon yéene googu mooy nuur ko ci dëkk bi rawatina fii ci Touba moo tax la la cëpp fii ci Touba lañ ko wutee lenn it ñu ngi ko wutee ginnaaw wurusoo gi ci dëkk bu naan awre ca secteur boobu jàpp jàpp Bakel diggante boobu lañ ko wutee kon mooy camion yi ngeen seen ñu di ko dugal fii ci penc mi nit ñi wër ko depuis six heures cinq minutes ba léegi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ñoo ñoo ngi wàccee taxawaguñu. ah. li mu jàppagum de lim bi de moom xam naa ne ah mënu ma koo wax li tax mënu ko wax mooy day ndigalu seex bi nee na boo dee jëf-jëf ju toll nii ba pare di wax li mu jëf ji nee na day mel ne yow dangay ngay da damu ba tax na nee na bu ngeen ci yëkkatee bu leen laajee. nee leen ka ka leen di laaj ko yow xoolal rek lu sa xel jàpp ne moo fi nekk rek looloo fi ne waaw moo tax damay delluwaat bu mu ca booy booy ga mooy loolu sëñ bi wax ne xool leen rek xam ngeen nag yi bu ngeen ko xoolee xam na ay kopparaku ay kopparaku wut bu ngeen ko xoolee xam na ci ay lim bari na waaw kon dañuy sant rek di ñaan sëñ Saliou ndigal tuun yàgg fi loolu te wér liggéey bii muy liggéey yël bàyyam sëñ Tuubaa may ko kattan ak wér ñun ñii ko ànd ak moom te àndee woon ko ak way juróom ba sëñ bi defal ak ndongu yokk suñuy xéewal ba moom sëñ lépp lu mu bëgg ñu def ko ndax ànd ak moom gi de neex na ndax wuutewul ci ñun ak sëriñ bi ndax foofee nga xam ne foola cheikh bi jaaroon bay mën di am digal te mooy ak taalibe rek foofee la sëñ Sall jaar moo tax fi may wax ak yow day mel ne boo ñuy boo duggee bii kër sëñ Cheikh Mbacke day mel ne benn se benn benn taalibe rek la sëñ Cheikh am mooy sëñ Sall digal ndax loo seen ñuy def loxob sëñ Sall loo seen muy def muy def sëñ Cheikh Mbacke ko woo jox ko digal loolu kon nag ñun taalibe yi ameel nañ sëñ Sall ak cant ndax ñun li ñu boole ci mbir mi kat mooy ak taalibe li ñu boole ci mbir mi mooy liggéeyal sëñ Touba moom nag. ñun mënuñu wutale suñu bopp déedéet ay taalibe lañu moom mii suñu sang te ci kanam moo mën a jaar ci yoon wi koy may ndigal di ko jox ñu koy jëfee muy feeñ ci ñun kon moom ñun ñun amel nañ ko ak kat di ko ñaanal yàlla yokk ak wéram yokk kàttanam te bàyyi koog way juróom yii mu fi dese bàyyi koog rakkam yii mu àndal ci liggéey sëñ Tuubaa bi jërë ngeen jëf jërë waaw fii day li ñuy dénkaane fii ci dëkk bi mooy li sëñ Mountakha wax loolee mboole seen lum tare ca Touba gii sëñ Sall ndigal loolu la tere ci dëkkam bii di Jannatul Mahwa tere yi nag moom ñëpp xam nañ ko tëgg meeg pomeeg la sëriñ Sall Mbàkke waxoon wax ji ba mu bare ñu lis mu ne man de lii rek laa wax pomi ak jaxasoo gi nit nag looy nekk yow mu doon am po xam nga ko ah jaxasoo gi kenn ku nekk xam nga xam nga loo xam ci lu suñu su suñu borom bañ te nga wañ koo bañ le loolu ndax gënul ci yaw kon ñu ngi naan mbokk taalibe yi waaj nañu daara yi waaj nañu nag yi ñu ngi ñëw pareeguñu bu ñëwee ndigal la ko sëñ Saaliw Mbàkke joxoon ci santaan yi ndax danaan def buñ jubee màggal gi mu def ay kamiyon nag ceeb diw di ko joxe santaan yi ndax ku ne xam ne Touba day dëkkub teraanga day dëkkub sutura day dëkkub barke ba tax na ku fi ñëw sëriñ bee la moom sëriñ bee ko wax sag àjjana ajuwul sag jaamu yàlla moom sëñ Tuubaa ko wax waaye nee sëy say xéewal wul sag yëngu maanaam liggéeyuma du ma lekk du ma naan au ma doom jugóor gu ma mën a jàppale du ma lekk du ma naan ma doom jigéen ju ma jàppale du ma lekk du ma naan déedéet képp koo xam ne ñëwal nga ko tëkk bi moo la warlul la nga xam ne mooy sag tey jiit te mooy sag ëllëg kon bu cheikh bi ñëwee di def ay sañcaan te bàyyeeguñu ndax sëñ bi bi mu fi jógee bàyyi na fi quatre-vingt-sept waañ la fi bàyyi moom cheikh bi quatre-vingt-sept waañ la fi bàyyi fu nekk ñu fa yóbbu juróom-ñaari nag ren jii romb nañ dugg nañ ci saa yi te bi dana woon fekk tiire wul tuuba corniche Touba bi fekk collecté wul waru ko ay waañ boo waañ ngi daje nee na defagul li neex Serigne Saliou foofu nag la Serigne Saliou digal teg tànkam. gan gaa néew dana fa yóbbu yi juróom yi juróom-ñaar yii ñett ndax dañoo mënante waaw gox yi selon ni gox yi ko toll rek noonu lañ ko noonu lañ koy doxalee la ca nag moo jox ko daara yi nga xam ne muy taalibe mi ànd ak moom te liggéey liggéey bi mu joxaat leen ñenn ñi nag yi ñu togg ko seen dal ngi jox ko jaam kon ñoo ngi woo bokk jullit yi mbokk taalibe yi képp koo xam ne ne amuloo foo dal ñëwul fi janatu boo ñëwee daana la dalal berne di ñaan sëñ Sall ndigal yàgg fi loolu téwér jërë ngeen jëf Ibn